indi bus boo xam ne conseil municipal bi moo ko voté may ko ay ville de Dakar section basket xale yi nag li ñu naan dañoo def lu rëy ñu defal leen lu rëy bus bi wax dëgg yàlla maire xalifa sàll moo ko promettroon équipe bi moo leen njëkk jox subvention bu am solo ñu commencé dafa ay résultat mu ne leen danaa leen utal bus pour bu ngeen di def seen déplacement ngeen mun ci dugg bi ma ñëwee man yooyu yëpp dama ko yeggale mbébétu Khalifa la woon. ma ñëw daf dans la continuer promesse yi nga xam ne defoon na ko ma jéem ko tenir loolu moo tax tey ñu daje fii tey bus bi nga xam ne conseil municipal moo ko voté jox leen ko ma doon ñëw tey di jël clé yi di ko jox président bi di ci profité nag di féliciter président bi staff bi mu àndal entraîneur yeeg joueurs yëpp ndax résultat yi ñu may daaw wax dëgg yàlla sedd na xol te kuy liggéey danga ko war a wan ne gis naa li ngay def mantam tam danaa la defal li teraanga comme on di teraanga moo koy fay donc équipe bi jox nañ leen bis bi ma leen di ñaax bu baax nag bis bi nañu ko toppatoo nañu ko toppatoo bu ñu ko dawal ba mu yàqu bu ñu ko pamti pamte nañu def attention parce que bu ñu la joxee dara da nga koy sàmm bu bu buñ ko sàmmee ñun bu suñ xool seddee dañuy dolli waaye buñ ko buñ leen ko joxee aussi ñu yàq ko ah foofu lay yem. kon nag may ñaax bu baax chauffeur bi ak joueur yi car bi seen yëf la yéen a ko moom toppatoo leen kon ndax uti de travail la ndax moo leen di yóbbu bu ngeen di jouer ji xam nga lii moo gënoon di louer car wala di dugg ay taxi di yóbbu xale yi kon nag lii ñu leen defal tey ñoo ko moom récompense la mérite la nañ ko sàmm bu baax